بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله bismillahi fiinil أدار يا الله سفي بقاء أبيهم لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte di leen nuyoo fii ci Kawsara faal ci eh, kër Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ci bâtiment bi nga xamante ne bii moom la Serigne Fallou Fall moom Serigne Amdi Yacine Fall àndoon ak ay rakkam ak taalibe yi doon ko yeesalaat te mu nekk bâtiment boo xam ne Eh, cosaan la moo di ci atum 1981 jàpp 1982 Cheikh Abdoul Ahad Mbacké joxoon na ndigal eh, Serigne eh, Amdi Khady Fall mu àndoon ak Serigne Amdi Yacine Fall ak an Serigne Amdi Nogoy ak mboolem njabootu ko Serif Assane Fall gépp ñu defoon fi bâtiment bu mucc ayib bâtiment boobu nag quarante ans ginnaaw boo xam ne defar nañ ko Serigne Sidi mi nga xam ne moo fi toogal Cheikh Abdoul Ahad di murid saadex yàlla may ko fan wu gudd loolu ànd ak wér-gu-yaram joxaat ndigal Serigne Fallou euh, mu ñëw ngir yeesalaat bâtiment boobu bâtiment boobu nag bokk yi euh, Serigne Fallou Fall mi ngi ko tàmbali ci jamonoy euh, soriwul ci janvier bi la la la douze janvier la la dix huit janvier jàpp la jàpp la dix neuf janvier yaakaar naa ne ci la ñëw fekk fii loo xamante ne bii mu dindi bâtiment bi ba mu set. maase la li fi nekkoon teg fondation bi euh, jamono yi le 19 euh, janvier jàpp le 10 euh, le 18 janvier bi mu tàmbalee fondation bi ak léegi maçon yi noppalu wuñ ferrailleurs yi noppalu wuñ kenn noppalu wu ci ba jëmmi tabax bi tabax na ko ci ñaari weer yu manqué juróom-benni fan. ñaari weer yu manqué juróom-benni fan la gas la gas fondation bi tabax ko ba monté yi. Euh, monté climatiseurs yi monté vent euh, félicitaires yi ba lépp noppi tey jii mu defar kees gi dagg ko euh, fas ko yéene jébbal nag ki nga xam ne moo di sëriñ Sidi Mbacke xalifatu xalifat Abdoul Ahad yàlla na ci dëkk lu yàgg lool bañ yeesalaat ko moom mi ko yeesaloon yàlla na toog ba yeesalaat ko at yu bëree bëree bëri muy liggéey bu am solo boo xam ne bokk yi da ngeen dugg ci biir ànd ko ak suñu caméraman sëriñ Mouhamadou Diouf ma ànd ak sëriñ Souley Thiam leeral leen li ne ci biir ngeen gis ko yoo xamante ne bi néeg bu ci nekk ànd na ak toilette mu defar ko kees gu mucc ayib bâtiment bi nag mi ngi tudd Kawsara Fall nekk ci biir kër Cheikh Abdoul Ahad ci fi nga xam ne fi la keesu jigéen ñi nekkoon nekkoon bâtiment jigéen ñi boobu la Serigne Fallou Fall mu sëñ Amdi Yaasin yeesalaat dabay ànd ak sama caméraman mu dugg ci biir ànd ak Serigne Souley Thiam mu wan ko liggéey bi ñoo ngi siyaar bu baax njabootuk sëriñ Amdi eh, Yacine Fall gépp nag sëriñ di Yacine Fall gépp di leen ñaanal yàlla di ñaanal yàlla mbooleem njabootuk maam Cheikh Rahma Fall gépp seen i taxawaay ci liggéeyal sëriñ Touba mu yàgg lool te ànd ko wér sëriñ Sidi mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Abdoul Ahad dëkke ko ba mu màggat ba mu yeesalaat ko ci barakati Cheikhuna Ahmadul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ñu fi ñëpp di leen siyaare di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sëñ Fallou mi nga xam ne mooy kilifa ak jotaay bi xam naa danoo jot ndigal mu dab nu rek mënuñu ko bañ a jafe wala waaye nag suñ jëwriñ ji sëñ lay Thiam mi li mu wax kat buñ ci yemoon yaakaar naa ne dana doy sëkk xam naa sëñ bi daa bëgg ma ma ma ma kii rek moo moo tax mu ne naa ci sànni ay kàddu waaye mën naa yaakaar naa ne kàddu yi gàtt lay doon kàddu yi sant lay doon rek ak soññee di jiitu ci cant gi nag. dañ koy beral sëñ Sidi mi nga xam ne moo nu booru ci njëriñ lu rëy lii ndimbal lu rëy lii nga xam ne borom kër gii day man sama xelum bopp jàpp naa ne murit bu ne war na koo war na koo liggéeyal ndax diirub lim fi nekk day danaan wax ne lu ma li ma am lépp de danaa ko defal sëñ Tuubaa jumaa jii di keroog bi mu wootee bi muy un milliard cinq cent millions dana li ma am lépp danaa ko ci def lu may jox danaa la ko ci defal sëñ te bari na ci njabootu sëñ Fallu gi ñoo xam ne jamono yooyu fekkee wuñ ko won te sëñ Tuubaa ba muy ñaan ci dëkk bi naan wax fir li man banaw bana bina rafi wax fir li man amarahum bihim jamii wala jamii men ahaanahum ala bina ihaalisi bi ka bi fadlika tala jumaa ji doongu taxul woon muy wax kon tabax buñ fi tabax te muy taaral dëkk bi ña ko tabax mën nañoo jàpp ne dugg nañ ci baytu sëñ Tuubaa boobee wax di xawaa i jële si daamoo fi xidmati yi waxab lahum koy wax jumaa ji doongu taxul muy wax ta luñ fi tabax te muy te muy luñ def ci dëkk bi ña ko danañ danañ am payuk adduna am payuk alaaxira kon sunu sant ñu ngi koy jiital sëñ Saliou Sidi mi nga xam ne moo dugal liggéey bii wàccee ko nag sëñ mi nga xam ne nag nun dañoo ànd ak moom adduna ak alaxira bàyyam boole na moom te kon ñu ngi ngi ñu ngi sant sëñ Sidi ci lim ko jox sëñ fallu sëñ Fallou ànd ko ak nun ndax wóor nañu ne am nañu yàqin bu wóor ne liggéey bii liñ ci bëgg nañ ko ci am te fu wér nag lañ ko teg ndax yoonu murit kat ba mu sosoo yàgg na waaye liggéey bu sell nii gaawee nii pasteefoo nii ñu liggéey ko ci liir buñ ko liggéey nii ku ko fi dégg ci yoon yi ma ko wax man xaw ma ko loolu nag pasteef la ak bëgg ak yéene ak ngor ak jom nag jom ji ñu jox liggéey bii ak fulla ji ak fayda jii nii mënuñ cee bañ a daje ngërëmal sëñ Tuubaa kon sëñ bi ni ngi lay sant bu baax sëñ Fallu dina ñaanal ci barke sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima Fall ndax dara jógu fi na nga fi ne ba doyal fi yàgg fi lool ànd ak wér ak nun ñi nga xam ne da nga fàtte koo xamante ne bii moom nga waroon a jiital waaye soo nee ñëpp rek ñëpp moom matale a ngi ci biir soxna yaa ngi a ngi ci biir ak taalibe yi kon sëñ bi sant nañ la bu baax di la ñaanal liggéey bii na nga ko jébbale ci jàmm te tàmbaliwaat yeneen nefi fi ba doyalal sa bopp nun ñu nag nun ñu xam ne nooy tool bay nag nun nun li am ku ko am war nga ko gën fonk te téye ko bu baax ndax sëñ Fallou mii kat bu meloon neneen nit duñ ko bàyyi duñ ko sànni duñ xam nuñ koy def waaye dañuy ànd ak moom rek kon nag boo yàlla boolee mu bokk ci kilifa yi nga xam ne dañoo gën ci dëkk bi man ci dëkk bi gën cee doon jàmbaar nun taalibe yi nga xam ne ñoo ko topp nan bokk ci ñi man ci ci murid yi ni ñuy mënee ci murid yi nag mooy di teew di joxe di xalaat lépp loo xam ne Pastef da koo laaj bu dikkee lu mu mën nan ko ca def jëf nag bu jotee ku mën jëfal ndax bis day am boo xam ne kenn du mën a jëf kenn du mën a wax kenn du mën a def dara te fan jëm kat nee nañ jëf rek moom lañ fay seere Seydou Fall nee na baat bi gàtt na jaay jëf waaye nee na ku jëfut du ko am ñi nga xam ne ay taalibe dañuy dañoo dañoo topp ci ginnaawam tam mel ni mu war a mel suñu borom baaxal ko sawaral ko am loo ko jom am loo ko ngor nee naa ko benn sëriñ ci Touba bu la gën a ñemee fere xaw ma ko wala gisuma ko te ku ko fi xamit na ma ko wax nag kon ko am ko mel noonu nag dang koy sagoo te dar ko te des ko man de mënoon na maa toog ci kër waaye sama jom ak sama ngor te looloo jàpp murit yëpp moo tax saa bu ñu xëy see xëy si ndax ndax wàcc ko fi mu ne fi moom dong du ngor ci noonu ndax melokaanam wii ko yàlla bind nga xam lépp lu ma ne song na ko bakkanam la cay tayle koo xam ne lu mu xas songu nag bakkanam dajay tay la bu la yàlla leeg moom da ngay am jommi bu tay nga tay rek kon maa ngi soññi sama bopp tàmbalee ko sama bopp ak taalib bépp boo xam ne aju ci kër gi ak rakk yi ak mag yi ak soxna yi ak ñu am jom am fulla am fayda te ne ko dan nag te bañ a fa lenn di ko doxale suñu diggante moom te xam ne sëriñ bi ñu am kat nit mën na koo ëpp ayat de waaye joma ngor ak fulla ak fayda ak ak liggéey Tuubaa ko fi maa ko wax ca kaw fu leen neex nag jàllale leen ko fa ay at nag moom mënees na gën koo nangu gën koo mën a liggéey gën koo ñemee fere gën koo mën a sonn ci nit benn sëriñ ci Touba gi ëppale wu ko maa ko wax ca kaw kon nag maa ngi soññ sama bop di soññ taalibe yi ñu góorgóorlu liggéey bi bu jàllee ndogu yaa ngi ñëw leneen a ngi ñëw leneen a ngi ñëw waaye nun fi ñu war a nañ fi ne rek ndogu yaa ngi ñëw wóor na nun ni Kawsara ndogu yi kenn mënu ko ci te te te yi rek la kon waaye mën na ko ci def lépp loo xam ne nee na ca di ca liggéey bu ca xool xool lii bu ca kenn xool laa nañ ko dan rek te lu waayam rek jox ko ko ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp addee ji weesu it sant nañ ci ndax liggéey bii kat biñ koy liggéey yàqu ci li nga ne moo war ci nekk di Kawsara dara dajale nañ addee ji nañ ko lenn lu ne fa mu a dem dem na fa ko te ñu ñoo ko doon kon xam nañ ci dara te yàqu ci liñ lenn lu a def ci kër ko mën lañ daan def danañ ca bàyyi dara wala dara sooxe ca wala dara waaye mboolem liñ daan def ci fañ ko daan def amut lenn loo xam ne sooxe na te maa waat ne ndogu yu ni ñoo kon nan nan jaajuwaat rek waaw loolu affaire bi noonu kon nag sëñ ñi ngi sant bu baax di sant rakk yi nii ngeen mel kat man bu ngeen melu noonu da ngeen ma jaaxal ndax yéen ko seen bàyyi daal liggéey ci jërëjëf euh, sëñ Assane Diagne yaakaar naa kaddu yi soñé yi mat na damay bàyyi ak sëñ Mourtala Lo mu andil ma ay seere loolu tuuti rek ci sëriñ Amdi mi nga xam ne moom moo ko yar euh, jàngal ko ba mu beru fee tey jii ba lii lépp nag ci liggéeyub sëriñ Amdi rek la bàyyi ko kon sëñ Mourtala Lo bokk ci njabootu sëñ Ali mbendaloo Lo di doomi soxna ma it ñu bàyyee ko ak kàddu yi. dañuy tuub di jéggalu rek ndax ndigal moom bu xasee jóg jëfee rek liñ ciy wax di sëñ Fallou mën naa bañ a sori sëñ Fallou mii li gën a jëfe moom moo ne ci moom muy tabe ci sa daraja. ndax bâtiment bii biñ koy biñ koy rëdd sëñ jiili dana demal ci sëñ bi mu ñëw ñaan mu ne ma demal nga ñaan ma ne ko déedéet sëñ jiili nee na nga ñëw bi mu ñëwee ne gees daan ne bâtiment bii de sëñ am di xëdi moo ko fi liggéeyoon ànd kook sëriñ am ak njabootuk sërif asan gépp daan ne njabootuk sërif asan gi nag ñoom ñëpp ñu ni taxaw daan ne gees sëñ jiili mu mu mu sëñ mu euh, am di nogay ne gees sëñ Cheikh mu sëñ Cheikh Khady kon daan ne daan ne ñaan leen loola eh, li nga wax ne lim doon liggéey njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp la ko àndal mooy moom ñëpp la yéene ñëpp ñëpp ñëpp la ëmbaale ci biir liggéey bii te barki démb dama fee ñëw ma ne sëñ bànd ne ko liggéey bii lu ci waay fas te amoo ko rek boo delloo seetaal sa bopp. waaw ma ne ko fii lu fi waaye fas rek danga ko am loolu sëñ Assane wax na ko léegi muy waqadil waa ijal si na daamoo fii xidmatin wa hablahum min kamaaraamo loolu sëriñ Tuubaa ba koy wax loola ñun kenn ku ci juddu amut te la taxoon mu wax ko lu mel nii la kon taalibu bu ne la nga war a ndamoo mooy sa lay la nga xam ne mooy sa tiitar mooy sa kilifa ga nga topp na muy doxee ki nga topp nga xam ne tey fu mu toll mu ngi déglu ndigal te ndigal la bu jógee jëfee rek du ci wane ginnaaw mukk lu dul ndare bu loola dafa pare ba mu ba mu jébbale caabi ya kon ku am ku mel ni sëñ fàllu mii booy boo gën a feddale sa laxasaay te xam ne moom it dafa doon a liggéeyloo kon nag des na ko liggéeyloo te doon doomi général kat du taxafalu mën a màcc mooy taxafalu kon ñun ñëpp nañ jàngi màcc wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw euh, sëñ am di moom lañ ciy wax. mooy képp koo xam ne yaroo nga ci keppaaram foo jaar ku la gis xam la ndax moom bu bu la masaa gis tey nga def loo xam ne ak jubadi la du la ko wax de day bàyyi ba mu féex mu woo ndànk nga ñëw ci biir néegam mu ne ah nangam di gis naa nga def ko waaye bu ëllëgee bu ko defati bu ëllëgee loola yow dootoo ko def mboolem koo xam ne te ku ñeme woon lii sëñ fàllu di def nii tey ci ñeme njaboot. ci sëñ di la ko donnoo ndax sëriñ Seex mi nga xam ne tey mooy suñu mag ñun te boole ñu ci kër gi moom sëñ Amdi moo ko yor ci biir këram ba takkal ko soxna muy soxna Xadi Kebe muy aawam mu yore ko ci biir kër gi ba mu indi ñaareelam mu yore ko ci kër gi ba mu indi ñetteelam loola ña ko mën bariwuñu te kenn mësul leen a dégg ñoom ñaar kenn mësul leen a dégg alxuraan ji rek te it dara ñuru ko woon lu dul alxuraanu karim alxuraan rek la téye woon sëñ Seex ndax ba mu ko xoolee seet ko setantal ko xam ni kii nitu alxuraan la la ko téye daawut nangu it sëñ Cheikh def dara ci biir kër gi lépp sëñ Amdi moo ko yéene woon kon loola sëñ Fallou da ko doon sëñ Amdi lañ koy ñaanal mooy yàlla na suñu borom yàlla wàccuwaayam te njaboot gii nga xam ne moom la fi bàyyi yàlla na leen fi suñu borom yàggal te yàggal leen fi ñoom ñëpp kii nga xam ne mooy kilifa gi muy sëñ Fallou xaal yàlla na ko fi suñu borom yàggal. njaboot gii nga xam ne mooy ak njabootam nekk ci ronam muy ay rakkama ci doom yal na suñ borom yàggal leen fi ñoom it. tey sant tey jot suñuy suñuy seere ki lañ ki jot a xam ci suñu diggante ki lañ fekkee li ñuy a wax nag euh, ki sëñ di sëñ moom mu nga jëkk wax ki la jëkk a wax ndax liñ koy wax moom xañ na bëriwut waaye luñ gis la te fekk te jëflantewu ko moom kon mënuñu koo ñàkk wax. ndax suñ suñu am di Serigne Assane Serigne Assane dafa jëloon njabootam gépp ak njaboot ay bokkam bokk ak njaboot ak bokkam gépp boole leen andi leen fii ci kër Serigne Fallou gii suñu wéygur yëpp ñoo àndoon bañ fa de bañ leen defalee la ñuy def ba noppi ñëpp dañoo delluwaat ba mu des moom moom képp moo fi daloon moog jigéen ñi rek nag jigéen ñi jigéen jigéen ña jigéen ñëpp fii lañ ba fi lañ desoon kenn delloo ci te ngeen delloo ci te moom lañ fi desaloon te boo benn Baye Fall dëkku Njaareem dëkku Tuubaa nag ay Njaareem ak kees ak fu kenn xam ah waaw ay kaw saraak fu kenn xamul lañ dëkkoon moo fi nekkoon ak ñoom doon doon seen góor nag te moom dong la woon booba ñépp ah waaw ku mas soxla mu ànd ak bu fekkee luñ luñ lu mu war a teewlu mu ànd ko yow ba mu jeex tàkk lu mu mas a am bala nga koo laaj si mu andil ko loo ko laaj lam ca mën dina ko ci def loolu moom xam ngeen ko ñëpp xam nañ ko. fii booba ak Baye Fall kër gi kër gu mag gi booba Baye Fall ga lañ ko tudd Baye Fall ga tudd Baye Fall yëpp nga fa woon yeneen Baye Fall yi leen kër yi ñu nekk ñu nekk waaye ku bës a bët xongu doo amul keneen ko waxal de moom dong nga fi moo fi nekkoon loolu nag defe naa doy na bu liggéey bañ ba nekk ba nii mu fi jógee rek ndax bañ demee ba ba ba ba doon magit am nañ seen ak ñu toll ki màgg togg toll ki samp kër toll ñu digal leen toll ki yedd leen leen teg leen ci yoon mosu caa génn loxoom bam sax sama borom boole ko suñ gis ñu naaxal laa xam suñ am nag te nawet ba waxuma yi ñu tax ba tabax yeeg mbaar yi ñu sàcc di ko tabax ak yeegi mbaar yeegi bi ñu nekk ci fenn di fa rek ba mu dikkeel ay seng ay seng yaak mbaar ya ñoo ko fekk te kenn ko may mbaar mee ki Daaru Salaam waaw ci nawet bi rek ñu dikk fekk ñooñu xam nga suñ ni muy nekk ci biti rek di taw teeg taw taw yooyu ak naaj weeg yooyu amul mbaar daa daa ba mu demee rek daa daal di yónnee maçon beeg mbaarkat yeeg yëf yooyu ñu di fekk ñu foofa mbaar mii bi mu koy taxaw ci màggal gi kenn ku nekk am nga problème boo màggalee noo war a màggalee noo màggale gi waxu ko kenn da caa nekk rek ba bari la ko yàlla la mu ca bëggoon sa borom defal ko ca te noonu lay def suñ si matériel bi suñ si di baag li suñ si xal day day dox ci xelam lu mu foog ne xalaat xaw war na bëgg na ko wala arrangé na ko loolu loolu mu ne mu ne noonu la Cheikh Ibrahima doon def uh-huh. waaw lu mu foog ne war na ko arrangé rek wala mu war caa nekk moom mu daal di koy nekk moom ñu ku xam xawma ku ko xamut ku ko xamut de wala ku xamut suñu ji waaye ku xam suñu ji di xam ko di nga ko ñaan ci ànd bi sans borom ñaan yàgg ci barkeel ndax am na fu mu ko féete foo xam ne daaw yi doon daaw yi kenn nekk fa ña fa nekkoon ne xëy na ñu woon ki yeneen waaye ki yeneen nekkoon moom daal ñu koy ñaanal ñu ngi koy ñaanal daal tàmbali nag yàlla yàlla na ko eggale te ñu fay ko ci ëpp lu ci doon ak ñi ko àndal ñëpp sant nañ baax te ñaan jërëjëf bokki taalibe yi jërëjëf itam bokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp eh, dañu setaan ci liggéey bi nga xam ne moom la Serigne Fallou moom Serigne Amdi Yacine Fall ànd ak njaboot gi doon ko liggéeyal Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jaare ko ci jëwriñam Serigne Sidi yaakaar naa ne ñoo jot a dégg eh, li nga xam ne moo fi jaar ci ay kàddu maa ngi nag ak Serigne Modou Fall moom Serigne eh, Amdi Yacine Fall dend ak sëriñ Abdou Lahad Fall moom sëriñ Modou Abdoulaye Fall Ndar ñoom ñëpp ñu seq liggéey bi xam naa damay njëkki sama kàddu yi nga xam ne sëriñ Abdoulaye dana ko yëkkati ci kàddu yi nga xam ne sëriñ Sidi yëkkati na ko ak yëg-yëg bi nga xam ne def na ko ci ñoom ak taxawaay bi liggéey bi am. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa ñu ngi nuyu bokki taali bi bokki jullit yi sëñ gal sëñ Fallou Gall si la ñoo ngi lay siyaar ñaan su mborom jàppale la si ci yoon wi ah, tey delloo nag. sëñ Sidi Muxtaar sëñ Sidi sëñ Muntaxa Mbàkke su borom yàggal ko fi te wéral ko tey dellu wëlbatiko na di siyaar sunu jàmbaar ji sëriñ Sidi Cheikh Abdou Lahat mi nga xam ne kenn la ci yoon wi di jëmm joo xam ne itam ku ko gis gis borom pësteef gis jàmbaar gis ku bëgg Cheikh Abdou gis ku bëgg Sëriñ tubaax gis ku bëgg yoonu murit muy sëñ Sidi ci ñàkki caaxaan ci lépp lu mën a doon tey jii nag ñu am mbégte ci teewaay bii nga xam ne teew nañ ko ci barab bii nga xam ne euh, sëriñ Fallou Fall moom sëriñ Amdi Yaasin moom maam Serif Assane moom maam seex Ibrahima Fall bëgg lu baax foo ko fekk di ko yóotu di sàkku ngërëm ci jamono ju ne ak saa su ne di ko xeñtoo fu ne sans boole kook sëriñ Sidi moom Cheikh Abdou Lahat ndax yàlla mooy boole. te boole googee suñu borom defal ko ci tawféex ndax ku la liggéeyloo rek dalaa dalaa bëgg añal moom day mu tabe ci jëmmam tabe ci alalam wëlbatiku waat nag bu sàkk ngërëmul yàlla it da tabe ndax ñëpp la koy àndal yéene na ko ñëpp liggéey bii nga xam ne nag moom la sumbaloon sëñ Siidi moom si ab laat am na yeneen yu ko jiitu yum ko defal yoo xam ne sa xañ na xajul ci waxtaan wi waaye nag bii nga xam ne saa dogal na mu di ko jébbale tey tey jii ci àllarba ji fukki fan ñaar ci weeru ci weeru euh, maamu koor ci weeru baraxlu muy liggéey bu yéeme liggéey bu mucc ayib liggéey bu ànd ak yéene joo xam ne ak jëf joo xam ne lim ci def ci liggéey bi xel mënu koo tudd waaye def ci boole ba biñ koy jébbale tey sax mu ngi doon xalaat am ndax amul lenn lu des lu ñu war a def ci biir bâtiment bi. ngir pësteef ak bëggam ak fas yéene bu koy jébbal sëriñ bi xolam sedd waaye sëñ bi nag defe naa ne li wone tey moom nee na sama xol sedd nu guyu daan sëñ Fallou kat waat naa ci yàlla ne am nga ngërëmul sëriñ Touba waat naa ci yàlla ne am nga ngërëmul seex Abdou laat tey kenn du la tane fii fii ak fañ jëm ëllëg kon looloo rek doy na sant doy na seere ñi ñaanal sëñ Fallou nag sa borom dolli ko jàppale. ndax moom jëmmam ji fi mu ko jëmee mooy nangoo liggéeyal maam ju tedd ji rek Cheikh Ibrahima Fall roy ko ci maamam ju tedd ji maam Serif Assane te di ko royee mi nga xam ne képp kuy wut lu baax ba yem ci moom bu ak see dëpp ndax dafa yaroo ci diggante Cheikh Moudou Fadal ak way juróom bu tedd wa Serif Assane ñu yar ko def ci moom li mat a def ci moom mu ne fi ba am seen yaari ngërëm yi am ngërëmul Serif Assane am am ngërëmul Serigne Fallou bàyyi fi doomam nag sëriñ Fallou Fall mu mat ko sëkk ci kuutaay ci fànn yëpp defe naa fi bàyyi am di bàyyee kër gi bàyyee ko fi yoon wi moom day bu doon benn dolli na ci junni ci pëstéefam ak taxawaayam ak ku bëggam ba noppi ànd ko képp ko yàlla booleel mu ànd kook yow yéene a ko ñëpp liggéey bi mu jëfal sëñ Sidi nag seet na xolub képp ku dib taalibe képp ku bëgg lu baax soo fi accès da nga xam ne jëf ju baax a ngi ni danga nga xam ne jëf ju sell a ngi ni da nga xam ne itam. Euh, jërëjëf euh, Cheikh Abdou Lahad Mbacké Cheikh Abdou Lahad Fall euh, moom Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar ñu moom sëñ Abdoulaye moom maam Cheikh ma Fall sëñ Modou yaakaar naa ne liggéey bi bañ ko tàmbalee ba fi mu ne yéen ñi nga xam ne yéenay njabootuk sëñ Amdi Yaasin yéen a ngi topp ginnaaw seen kilifa. def ko muy seen way jur def ko muy seen sëriñ ànd ak moom ci liggéey bi ba tey ji ngeen dégg kàddu yi nga xam ne moom la sëñ si di wax ne tabax bii da ngeen suñu borom dana leen ko tabaxal ay njënd ëllëg yomal xiyam te itam ku aajoom nërta faju ku aajoom fa euh, ku ci laal ko ne sa aajo dañu faju fii ak jë fan jëm ba noppi man koo waat ana yan kàddu ngay yëkkati. ok asubillahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax a baax a baax di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal di ñaanal jëwrinu maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina sëñ Amdi Moustapha di ko ñaanal sëñ Amdi Khadi di ko ñaanal tamit borom ëtt bii di sëriñ Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacke di ñaanal sëñ fallu moom sëñ Amdi Yaasin ak mboolem njaboot gi ñëpp rek xam naa ci tënk ci gàttal mooy sëñ Abdoul Ahad mi fi mu daanee day mel ne euh, du neex du neex du neex a wuutu ci ay kàddu waaye ginnaaw kàddu ndigal la ñu joxuñu ko ngir ñu war koo yëkkati rek faaw ñu jéem loolu la sëñ Sidi Mbacke waxaat rek suñu borom na nga faj aajo ñi may liggéeyal te lépp luñ bëgg na nga leen ko defal. te sëñ ab Abdoulaye waxoon na ne sama yëngu ak sama dal lépp ci sëriñ Touba ko jëmale kon koo xam ne ni yëngoom ak dalam lépp ci sëriñ Touba nga ko jëmale kon kooku boo jëmalee ci moom ab liggéey sa xel war naa dal sa xool tamit war naa sedd rawatina doomam ji nga xam ne moom moo ko fi nekkal te lii mu sant sëñ Fallou yaakaar naa moom moom moom rek mënoon na lu ëpp loolu te keneen ku mu ko santoon tamit mën nga lu ëpp loolu waaye ku la liggéeyloo ku ne dala bëggal njariñ kon nag dañuy ñaan ànd bi nga xam ne suñu borom boole na leen ko ñu ànd ko suñu borom def ci barke gën koo yàggal lool lool lool lool te seytaane bañ ci amu yoon waaye sëñ bi daal li mën a xew mooy mi ngi sant taalibe yi ndax lépp taalibe yi la mi ngi sant uh, mbokki boppam yi ak sëñ Abdou Lahad mi sëñ bi mi ngi koy sant bu baax ndax foo geesu gis sëñ bi gis ko ca wetam yàlla moo leen boole ak waajur yu baax ya te gis nañ ne kenn ku ci nekk yaa ngi koy sàmm na nga ko war a sàmmee te damay gis ne su ci tuddee sëñ Abdou Lahad rek tudd naa njabootu Cheikh Ibra gépp su ma ci tuddee sëñ Abdou Lahad tudd naa njabootu Serigne Touba gépp ndax kenn koo ci tudd rek day yóbbaale ñëpp ndax sëñ Fallou fii bâtiment bi mu commencé ba tey njabootu sëñ Touba gi ñu ci bari ñëw nañ fi njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi ñu ci baree bari ñëw nañ fi Kawsara kenn desut te bu ma nee njabootu maam Cheikh gi su ma tuddee Kawsara ñëpp duggaal nañ ci biir kon moom it mi ngi sant mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi nga xam ne yëg nañ ne am na liggéey boo ne sëriñ bi teg na ko ci loxoom ñu ñëw ngir seen xol sedd ca loolee ñu ñëw teew fi def ci ñaan wala ñu ñëw barkeelu si wala ñu ñëw wala ñu dégg ko sax woo ko téléphone ñoom ñoo ñëpp sëñ Fallu mi ngi leen sant bu baax te di leen gërëm te di leen ñaanal lépp loo xam ne ni jëlee na ko ci liggéey bii suñu borom boole ko ak ñoom te te te wàcce jàmm ci réew mi suñu borom wàcce fi naataange te wàcce fi ay xéwal yu baree baree baree bari yu ànd ak jàmm sëñ Fallu yooyu ñu ngi lay beral ak cant bu baax yow ak mboolem waa waa waa Lamp Fall ak mboolem waa site internet bi ngeen nekk yéen ñëpp sëñ Fallu sëñ mi ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm ak mboolem ñu ko jël si woon ñëpp rek di ñaan yàlla saa borom defal leen jàmm ak tawféex xam naa di jégalu ci kàddu yu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yéen mbokk julli mbokk tere ñoo ngi leen di siyaare di siyaare suñu sang bi Serigne Fallou Fall di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool moom njaboot gi di ñaanal Serigne Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoulaye Ilahat Mbacke mi tamit yàlla yàggal ko suñu këram ñu yàgg ko yàgg ñoo jox yi liggéey ñu di ko liggéey comme nii liggéey bi nag biñ ñëwee dañ fay fekk uh, ab boo xam ne nii mi ngi fi woon Serigne Amdi Khady Fall moo fi defoon ñu ko doon yeesalaat biñ ñëwee ñu dajji ci ko dindi ko dindi simili dindi lépp ba suuf ñu gasaat suñuy fondation fondation bu mucc ayib ay 1 mètre 50 profondeur wala ay 1 mètre 20 ay simili 1 mètre 60 vingt mètre 20 yooyu lañ fi def fer de importé la fer de 12 am na ci fer de 14 am na ci fer de dix fer de 8 si liggéey bi ñu ko liggéey it ànd na ba palaasu nab la mais yooyu yëpp def nañ sunuy xam-xam yi ñu yàlla ba may ñu boole kook moom def nañ ci ay ciment def nañ ci sondage ñu war def yëpp traité nañ ko tamit fondation bi tamit am na profondeur am na cadran fondation plus seenage cinquante centimètres seenage suuf ñu tabax ko si ñaari weer yu teg euh, yaakaar naa ñu ngi ko tàmbali woon euh, le 10 le 10 ba le kon le 10 bi passé la suñ deux mois kon ñu si deux mois yu teg ñetti fan xam naa loolu ñeenti fan voilà ñeenti fan keroog bi ñu ko commencé dindeeg léegi yëpp deux mois yu teg ñeenti fan si lañ toll liggéey bi tamit liñ ko war a jox jox nañ ko ko liñ ko war a jox jox nañ ko ko si xam-xam ànd kook suñuy mbokk ouvrier yëpp muy ferrailleurs yi muy électriciens yi muy plombiers yi muy carreleurs yi muy peinturekat yi muy ñëpp man maa nekkoon seen njiit def nañ ci liñ ci war a def lépp ndimbalu suñu borom nag moo war a mu def lool ndax bâtiment bi si yoon bu ñu ko degoon si yoon dong nga xam ne ndimbalu suñu borom tegewu fa war nañ koo mën a liggéey lu mat 6 mois mais dañ daan liggéey guddi léeg-léegi 22 heures la ñuy wàcc léeg-léeg ñu wàcc 21 heures loolu yëpp nag ah, baaxuk sëñ bi rek ñu ko may ak mbooloo ak mbooloo birig yi tamit birig yu qualité lañ fi def dose 30 lañ birig yi birig yëpp am na grain diri muy urdi muy beneen lu mu si mën di doon lu si mën di xew daal mooy liggéey bi fi ñu ko war a jaaral lépp jaaral nañ ko fa teg nañ ko foo xam ne même bu fi ingénieur ñëwoon tamit di ko xool tamit liñ fi war a def def nañ ko fa daal war naa mën a diire cent du am benn problème incha allahu rabbi waaw loolu daal lañ si xam waaw nab bi biñ ñëwee gis nañ nab bi ndax dañ doon gas ay profondeur euh, un mètre di am ndab mais dañuy gas bàyyi ndox mi nii génn ñu ngàcc ko bi ñu paree ñu jël poliyaan lal poliyaan xam naa du ngeen xam poliyaan mooy perméable bi ñu paree di ko booleeg suñ ciment di ko doose wut ciment sika di ko booleeg suñ ciment benn saako ciment bu ne un ko doon def noonu lañ liggéeyee suuf gi yëpp ba ak si autoru autoru fenêtre loolu yëpp noonu lañ ko liggéeyee waaw waaw waaw ah am naa si yaakaar ba su coobari suñu borom de nañ si daal li nga xam ne moom la ñu suñu xam-xam laaj def nañ ko si ba jàpp ne moom man naa te na incha allahu rabbi ñaari baat yi sëñ di wax dooy na sëkk nee na ko wóor nu ma ni man na maa wat ne sëñ Abdou Lahad bég na ci mën na maa wat ne fii ak fa jëm kenn du la kenn du la kenn tane waaw loolu euh, santees na ci baax a baax man damay wax ne man damay tiitaru damay tiitaroo sëñ Fallou Fall dama koy tiitaroo donte la waajuram laa da koy tiitaroo ndax liñ koy tudd di ma tudd ci bokk te sëñ bi ak taalibe mooy li fa gën a maye ndam li nga bëgg kon ñu ngi koy tiitaroo ndax moom wajuram man ak sama rakk ji ma bokkal ndey ak baay moom ak ñaari magam yu jigéen yi bokkal ndey ak baay lépp la suñ la la sant baay yëkkati sëñ daam xule la yëkkati jébal ko sëñ fallu góor ak jigéen yépp la mase jébbal ko sëñ Fallu loole nag tey jii ñu ngi koy sante yàlla bu baax a baax a baax la taxoon mu ko def de ba mu koy def ñam ko def ñam nekkoon loolu xamuñoon li muy def ñu naan sëñ Dame Khoule li muy def waaye fekk na tey jii atte na ko kon loolu ñu ngi koy sante yàlla di ko tuutaroo bu baax a baax a baax man ak sama rakk yoon bokkal ndey baa ñu yóbbu ñu ca daara ja Touba Bogo Ndindi ñu yóbbu ñu Ndindi bañ fa jógee ñu ànd ak suñu ci liggéey suñu Tuubaa bi nekk Tuubaa ba ko ba ba ba ni liggéey ba noppee ñu àggale bu liggéey ci sëñ Modou Bousso Dieng moom mu nekk ci kër gi ci kër so ci kër soxna Sooda bañ jox ko suñu Amdi Fall jox ko soxna soxna Maam Say rakam jox ko soxna Mbène Baara ñun ñëpp ñu nekk ci biir kër sëñ Fallu ba sa borom dogal tey jii ñu ñëpp ñu fekkewaat kenn ku ci di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax rëccu wuñ ñu fi doon indee kañu ñu fa indi rëccu lu ñu fi doon indee sama xol daa sedd ma tax mënu maa wax waaye nag maa ngi sant ko te di ko ñaan rek yàlla na ko yàlla barkeel lool ak njabu ak ak rakkam yii yàlla nañu yàlla barkeel mboolem njiwum sëñ Dankole mi nga xam ne moo ko ji ci kër sëñ Touba yàlla yàlla yàlla na leen yàlla meññal te barkeel leen barke sëñ Touba ñëpp maa ngi leen di ñaanal jërëjëf jëf jërëjëf mu doon kàddu bàyyi Baye Serigne Khoule di nijaay ci Serigne Fallou mu sëñ Amdi Yacine Fall ñoo jot a dégg yi mu leeral ci li nga xamante ne moom la seen maam defoon di Serigne daam Khoule yëkkati leen joxoon leen addee Cheikh Mamadou Fadel ba tey jii ñu gis meññat mi bàyyi ko ci addee jooju kon liggéey bi rek lañ leen doon présenté muy eh, Kawsara Fall di batiment bi nga xam ne eh, sëriñ Euh, Serif Assane Fall liggéeyaloon na ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké wala njabootu ko maam Serif Assane Fall gépp àndandoo woon liggéeyal ko Serigne Abdoul Ahad euh, Mbacké ci atum 1982 bañ asiwaat ci 2002 Serigne Sidi yeesluwaat bâtiment boobu 40 ans ginnaaw bi Serigne Fallou yeesalaat ko nii muy fukki néeg yu ànd ak euh, seeni toilette ak la ci war a ànd néeg bu nekk am na lal am na climatiseur am na congélateur am na télévision mu nekk lépp liggéey boo xamante bu mu ci ayib la ànd ak qualité eh, kon gis ngeen eh, ni nga xam ne moom la bokk yi yëkkati ci ay kaddu waaye dégg ngeen kaddu yi nga xam ne moom la seriñ Sidi mu Cheikh Abdoul Ahad yëkkati te yaakaar naa ne ñi xam ne ñoo ngi topp rajo yi di topp site internet yi di topp télévision yi yaakaar naa ne kaddu gu njëkk ngi nii ñu déggati ñu yëkk a dégg Serigne Sidi yëkkati ay kaddu te ko ko dégg xam ne lu ko ñor la kon nag ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll moo àndoon ak di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal boppam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu بسم الإلائفن الدار يالله سفي بقاء به لي فيك يالله بسم الإلائفن الدار يالله سفي البقاء به لي فيك يالله bismillahi finin الدار يا نام سفي بقاء بهم لي فيك يا نام يا من له الأمر يا ملاك